démb père bi nekkatu fi suñu génération ngay gis woo dara wax su fi ngay dem dugg créer sa faux compte mm. toog di wax deuxièmement lorsque tu insultes am na ñoo xam ne ay milliards du ñu saaga nit ci base bi la xalaatuñ ko mais imaginel mbooloo li ñuy wax dof doo ko jox kàddu ci mbooloo tu vas avoir mille personnes qui vont suivre la live kenn moo ciy nekk dof di saaga Safia wala saaga père wala saaga saaga Sophie wana am jot mhm. mm-hmm. am lan am connexion ak aigri Sophie yàlla na yàlla musal ci doom ju bon te aigri. sa mental bu baaxul dañ lay déstabiliser. waaw waaw nag mooy beneen sens éducation bi ah, boo yaree sa doom nag ci mental d'acier. yooyu du ko saf. te bu boobaa boo fi dëddoo ci àdduna bàyyi ko fi. lu ñëw day diis muy ñaari doom papa waaw loolu mais papa papa papa ci kaw yaroo sa doom ci moral d'acier dafa am importance sa doom da koy yar ci mu dëgër mooy jóge ci mbedd bi rek daw si ñëw jooy diw moo ne ma nga ne ko fompal say rongañ yow xam nga ki nga doon yow doomu Benoît nga